alhamdulilahi rabbil alamin summa alsalatu wassalaamu al atammaani al akmalaani ala xayri xalqillah muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa man wala nekk ci àdduna bi ngeen ñëwaat ak seen émission al di ci ànd ak cheikhana al docteur ñu war a duggaat ci beneen jataay boo xam ni jataayu tontu bataaxal la ci weeru koor wu tedd wi nga xam ni ci lañu nekk di ñaan borom bi subhaanahu wataala defal ñu tawfiix defal ñu jàmm ak salaam defal ko mboolem jullit ak fu mën a nekk ci kaw suuf yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def kon seyxanaa dañ lay jox nga ibbi incha allah rabbi soo noppee ñu doogay dugg ci laaji ak tonti tafaddal mashkuran ma'jura bismillahi rahmani rahim inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد bokk jullit yi ñuy déglu ak fu ngeen mën di nekk ñu ngi leen di nuyu di dellusiwaat ak yéen ci seen jataay bi ci Leeral FM di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu sunuy koor ak sunuy naafila te fulal ñu ko te mooy ñu wér gi yoo xam bañ mën a àggale weer wi ci jàmm kon tey la àllarba di fukki fan ci weeru koor wi tolloo ak fukki fan ak juróom ci weeru juin bi xam ne lañ nekk kon ñu daal di jublu laaj yi nga xam ne rek ñoo fi nekk xam naa rek dana gën a fàttali li fi noo ci weeru koor wi laaj yi nga xam ne ñooy rot te jëm ci koor ñi di ko jiital door cee teg laaj buñ ciy teg beneen bi ci des mooy eh, ñu wattandiku di boole ci benn laaj yeneeni laaj yu bari ci biiram ndax loolu day bari laaj yi te laaj yi su baree tontu yi détail bi nga xam ne moo ci jaadu eh, day daal di jafe waxtu wi xam nga ne laaj yi ak tont yi jàng ak jàngale la jàngale nag dafa laaj dars bi ngay jàngale nga saraa ba mu leer su fekkee daa bari ci sa kanam nag waaw kàddu yu gàtt rek nga cay mën a wax yoo xam ne di limité ngir mu dëppoo ak waxtu wi kon incha allah ñu daal di déglu laaj bi nga xam ne mooy bu njëkk bi jazakum allahu xayran ya cheikhana kii benn mbokk la boo xam ne nee na li bëgg a xam daal mooy attey corned-beef ndax dagan nañu lekk wala déet ndax dañ ciy dégg ay wax yu bari fi muy jugee ak koy def rek yu demee noonu bëgg cee xam daal ndax xalaal la dagan na wala daganul alhamdulilah korne boof mooy aw yàpp woo xam ne euh, dañ ko liggéey dugal ko ci ay pot mu mel ne poti jardin su noppee nañu di ko jaay su fekkee wóor na ne day yàpp woowee ca nekk yàpp nag la wala xar walla bëy ci yàpp yi nga xam ne lislaam da ko daganal te mu jóge ci réew moo xam ne réewum ñu gëm yàlla lañ maanaam duñu ay communiste nekkuñu ay yéefar yoo xam ne dañoo àgg ci gëmuñu yàlla su boobaa lay cosaan mu dagan ndax réewum yahud ak nasaraan muy ahlul kitaab dañoo doon ñoo xam ne lislaam da leen jàppe ñu gëm yàlla moo tax seenu ren di dagan loolu mooy cosaan li su fekkee nag nit ki dafa gëstul boppam ba mu wóor ko ne li nekk ci pot bi kat dañ koo tudde yàpp nangam waaye doonu ko wala mu dem ba xam ne yàpp woowu wóor na ko ne kenn rendiwu ko te am na ci yàqiin su boobaa nag tuutu dagan ci moom mu di ko lekk waaye daal sañ na la nga xam ne moom lañ bind ci kaw ak wax ko ca ne yàpp nag la xool itam réew moom jógee xam ne woowa réew réewum jullit la wala réewum nasaraan la maanaam réewum ahlu kitaab la su ko neexee sañ naa basé wu ci loolu lekk bu gëstoo nag ba gis luy tax duutu dagan su boobaa duutu dagan ci moom mu di ko lekk wallahu aalam jazakum allahu xayran ya cheikhana ki soxna Bintu Jóob la tudd dafay laaj ñaari laaj nag la sax bañat bu njëkk bi dafa ne jigéen ji nga xam ni mokkal na dara ci ay saar mën na julli julli boppam ndax kooku dina daganati mu dem ci jàkka ja di naafi la ci koor gi wala day nekk ci këram rekk naafi la wala mën naa dem ca mbooloo ma euh, naafi la ak waajumaa ji beneen laaj bi mu ni ndax góor ni muy duggee ci jàkka di julli ñaari ràkka muy nuyoo jàkka ji ndax noonu tamit la ko jigéen di defee walla déet beneen bi muy su fekkee ni nit dugg na ci jàkka ji fekk imam di taxawal ndax dafay julli ñaari ràkkaam nuy jàkka ji pare doogay dab imam wala bu boobaa day ànd ak imam rek wala déet alhamdulilah Cheikh Abdallah jigéen ji nga xam ne mokkal na dara ci ay saar ba mën a jullil boppam loolu du tee su bëggee dem ci jàkka ja ñu bàyyi ko mu dem ci jàkka ja jullik farata yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne jaami yàlla yi jigéen yi bu leen leen tere néegi yàlla yi muy jàkka yàlla yi laa tamnau ima allahi masajid nee na jaami yàlla yu jigéen ñi soxna yi bu leen leen tere jàkk yàlla yi kon kenn sañu leen koo tere su fekkee ne jullee na ca këram daal loola lu baax la su fekkee ne dem na ci jàkk ji julli ji it nag moo xam jullit farata la wala jullit naafila la dara wàññiwu ko loola itam lu baax lay doon li am solo daal mooy yoon wa muy jaar di dem na doon yoon wu wóor woo xam ne lortu ko ca dale waaye na génne it melokaan woo xam ne du fitnaal kenn nag ci yoon wi ci wàllu colam wala ci wàllu yamuy xeeñ wala lu nuroo ak loolu sart yooyu rek la am su xasee am yooyu bu ko neexee mën naa dem julli ci jàkka ja wallahu taala alam amaa nag euh, taxiyatul masjid muy nuyu jàkka euh, ni mu waree ci góor noonu la waree ci jigéen ndax Cheikh Abdallah abul fàtte ne àtte sharia yi saa bu borom bi tabaraka wa taala àddoo ci ab atte wala yonente bi alayhi salaatu wasalaam atte booba góor ak jigéen ñoo ko bokk lu dul dafa am beneen texte bu ñëw won la ne lii kat góor ñi dong nga ko moom waaye jigéen bokk ci wala mu ñëw ne la lii jigéen ñi dong ñoo ko moom waaye góor bokk ci waaye su dul loolu li nga xam ne dafa ñëw doon ay ndigal day généraliser góor ak jigéen ñoo koy bokk kon nuyu jàkka képp ku dugg ci jàkka fas yéene toog war ngaa julli ñaari rakka door a toog amma ki dugg ci jàkka ji nag fekk imaam ñu taxawal julli gi ba muy dugg ci julli kooku nag sañatu la julli li ñu tuddee taxiyatul masjid maanaam soxlaatul bu koy julli li muy def rek mooy day dugg ànd ak imaam ci biir julli gi te taxiyatul masjid boobu du doon lu lu muy fay ndax bul fàtte ne li ñuy bañ mooy mu dugg ci jàkka ji toog te julliwut ñaari rakka te moom bi mu duggee ci jàkka ji toogul dafa dugg ci biir julli gi julli julli farata yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ida uqimati salaatu fala salaata illa al maktuba suñ xasee taxawal julli daal julli amatul foofa lu dul julli gi nga xam ne mooy farata ida uqimati salaatu nag am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañoo wax ne mooy kay liqaam su waxee nag qad qaamati salaatu qad qaamati salaa su waxee loolu kenn sañatu la nekk di naafila su fekkoon ne dangaa taxawal sax di julli julli gu mën a doon moo xam taxiyatul masjid wala ñaari rakkaay fajar wala leneen suñ xasee àgg ci qad qaamati salaatu qad qaamati salaa nee na su boobaa daggal julli gi nga dikk ànd ak imaam ci ak julleem am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne su imaam suñ suñ liqaamee ba daaneel ba imaam ne allahu akbar foofa mooy fi nga xam ne kum fekkoon ngay naafila da ngay bàyyi sub naafila ñëw dugg si ci biir julli gi leneen lu ci nekk wax la joo xam ne dafa sukkandiku ci foo xam ne fu dëgër la ba tax na bu ci nit jàpp rek jàpp ne booba la su boobaa lu baax la wallahu taala alam jazakum allahu xayran ya cheikhana kii dafay laaj mu ni yeesaa dafay gis ci euh, rajo yi wala télé yi ñuy wax nit ñi di téléphoné di tontu ak yu demee noonu ñu nit ñu bëri téléphoné yeesaa dañ ciy génne kenn wala ñaar ni leen may nañ leen billet màkk wala yu demee noonu duñ leen ni gañ ngeen mais may nañ leen billet màkk muy laaj ndax loolu dagan na wala déet. ñooñu di maye billet su fekkee ne euh, la ñuy ñoo ko moom seen alal lañ maye euh, kiñ ko may mu dem aji ci kooku am na ak aj loola dara nekku ci lislaam daal li muy tere mooy di carte wala ngay def lu ko nubu ba amee ca biir màkk dem aji su boobaa sag aj sellut te suñu borom tabaraka wa taala ni mu ko waxee inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba noonu la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxee nee yàlla ku sell la ku teey lépp loo xam ne sellut teeyut suñu borom tabaraka wa taala du ko nangu ci xeeti jaamu yàlla yi kon daal su fekkee ne ab société la wala ab rajo la wala lu mën a doon nga xam ne dafa génn biey màkka di xool nan lay jaarale ci nit moo xam ab concours la koy def wala da koy jaarale ci téléphone ngir jox leen loola jàppal ne loola lu dagan la dara nekku ca ku ca aji insha allahu am nga ak aj wallahu taala alam jazakum allahu xayran ya cheikhana kii nee na waajuram da ko forcé woon maye ko kam ko mayoon it bëgg ko ñu naan nañ ko ci bàyyi bu ci amee doom dina bëgg ak gi demee noonu nee na am nañ sax doom waaye ba léegi fii ñu toll nii bëgg ko moo tax ni mu ko war a toppatoo toppatoo ko mu ne ndax loolu da ciy am bàkkaar ci ñàkk a toppatoo borom këram bi te moom moom moom moom bëgg ko ci xolam ànd ak nii ba léegi yàgg nañ waaye xolam mos a bëgg nu muy def ak nu ko ci lislaam ak sharia di sant. alhamdulilah foofu ñaari kàddu am na fi benn bi ca waajur wala jëm ndax def nañ njaaxum. mooy eh, jigéen ku mu bëggul waruñu ko ko may ku mu bëggul waruñu ko ko may jigéen di su ko forcé mukk ci lu ku mu bëggul ndax loolu njuumte la lu rëy loo xam ne mën naa indi njaaxum cib sëy mën naa tas ab sëy mën naa tax jigéen ji di sëy ba noppi di def ay njaaxum ca wet ga te su boobaa kat bi ki ko ko may moo koy gàddu beneen kàddu bi ci des mooy ci soxna si sëy ci boppam lañ koy jëmale moo di nekk ci sëy bi ba noppi ñàkk a def li ko war digganteem ak boroom këram na xam ne loola am na bàkkaar képp ku nekk ci sëy di sëy tam wóor la ne li la lislaam sant ci loo war a defal sa boroom kër mënoo ko xoolal nooy def ba génn ca sëy soxna saabit ibnu qays dafa doon sëy moom ba yàgg mu gis ne moom mi bëggatul boroom këram mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko ah saabit ibnu qays xeebuma diineem ma jikkoom waaye nag dama ko bëggatul te it bëgguma nekk ci lislaam ba noppi di dund kéefër nekk ci lislaam ba noppi di dund kéefër mooy lan mooy li la yàlla sant sa digganteeg sa boroom kër nekkoo ca wala nga nekk di sëy ba noppi dem di wut leneen lu nekk ca wet ga ngir ne ki ngay sëyal bëggatoo ko loola su ca desee génn ca boobu sëy te dem ci beneen moo ci gën bi mu waxee loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko waaw yow de bi mu lay e, takk am na lum la canale woon muy ab tool ndax mën nga ko ko delloo mu ne ko tool baa ngoog kon mu delloo ko ak canam lool daal di tudd li ñuy li ñuy tudde xulu muy summi konte yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di tas booba sëy mu yem foofa kon li ñu dénk mbokk moom yi mooy ki muy sëyal bu fekkee ab jaamu yàlla la bu baax bu góor góorlu te am naa ak moom doom te gis na ne e, continuer nekk ak moom mooy li gën ci moom na jéem a rek muñ te jéem a taxaw nag li ko lislaam sant digganteem ak boroom këram mu di ko def su ko wóoree ne loola mënu ko nag na xool sëy boobu nu mu waaye ñu xam ne yooyu yëpp ak problème yooyu jafe-jafe yooyu yëpp waajuram yu ko may ku mu bëggut ko ko teg moom mel noonu lu mat la Cheikh Abdullah jazakum allahu xayran ya cheikhana kii dafa ne am na ñoo xam ne imaam yoo xam ne bu ñuy naafi la buñ taree faatiha dañuy topp di di tari ay xulwa yu bëree bëree bëree bëree bëri ci ràkk bu njëkk bi bu ñëwaatee ci ràkk ñaare bi tamit bu ginnaaw faatiha dañuy tari ay xulwa rek di tari ay xulwa rek mu ni ndax loolu dafa nekk lu wér ci njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala luñ santaane la wala lan la alhamdulilah euh, Cheikh Abdallah loolu ñaari ñi koy def mooy ñi nga xam ne seenu mokkal ci alquran dafa soriwut lool ñu tànn rek li nga xam ne moom lañ mën a jàng di ko jàng ginnaaw nag suratul ixlaas dafa doon saar woo xam ne sunu borom tabaraka wa taala daf ko fonk lool eh, tuyaabaam itam nag ku ko jàng bari lool ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne tuyaabaam day tolloo ku jàng sulusul quran nga xam ne boo jàngee ñetti lixlaas day mel ne am nga tuyaabay ku jàng alquranul karim kon ñi mënta jàng alquran ci weer wi ba mu jeex ci seenu naafil la ñaare dañuy tànn suratul ixlaas di ko jàng ndax tuyaaba ju bari ji euh, su boobaa it nag dara du ci nekk ndax ginnaaw loola moo jàppali ndax suñu borom tabaraka wa taala daf ni faqra'u ma tayassara min jàng leen li nga xam ne moo jàppandi ci alquran al karim kon kooka bi mu taxawalee dafa jàng li nga xam ne moo jàppandi dëppoog ndigalul suñu borom tabaraka wa taala loolu baax na dara nekku ci incha allah jazakumullahu xayran ya cheikhana kii dafay wax ni moom day juumoon na ba njaalo mais nee na nag amul lu ko gën a metti ci àddunaam lu tol noonu waxtu wu nekk ci lay nekk di ci xalaat di mere boppam di jéppi boppam yéesaa di sax dina ci xalaat ba feebar ndax daan yi ko ci borom bi di teg yu demee noonu muy laaj daal euh, maam lan la ko sharia di teg wala moom lan la war a def alhamdulilah ki nga xam ne dafa tàbbi ci bàkkaar bu mag borom bi tabaraka wa taala baaxee ko ba nga ko defee mu rëccu tuub metitlu te bàyyi ko nag te ko yéenee te defati ba faw loolu la ñuy tudde ak tawbatun nasuux mooy tuub gu wér noonu yi mu ko tuube ba noppi di ko rëccu ba noppi muy doon lu koy metti ak di ko feebar loolu rëccu ga moo ko waral na am rafetu njort ci ne bu nekkul di delluwaat ca bàkkaar boobee waaye rëccoom googu yi mu ko rëccu continué na sax ak moom na jàpp ne sunu borom tabaraka wa taala daf koy jéggal bàkkaaram tuub ga mën naa rafet ba bàkkaar ba mu defoon sunu borom tabaraka wa taala wëlbati ko mu nekk eh, ay tuyaaba jaaroon na fi ma wax la ni borom bi tabaraka wa taala ba mu tuddee ñuy bokkaale ñuy njaaloo ñuy ñëpp daf ba noppi daf ne képp koo xam ne tuub na nag boole koog di jëf-jëf ju baax fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim xasanaat nee na borom bi tabaraka wa taala day soppi seeni ñaawteef mu wëlbati ku nekk ay tuyaaba kon daal la ci am solo mooy tuub gu rafet ga su rafetee nag na am yaqiin ci ne sunu borom tabaraka wa taala jéggal na ko yàlla na sunu borom tabaraka wa taala boole noonu ñëpp ak njëkkal cheikh abdallah jazakum allahu ya cheikhana kii dafay waat woote muy laaj ni ki nga xam ne amee woon na boru koor avant koor gi di ñëw mu tàmbali di ko fay waaye nag jotul a jeexal koor gi dugg weeru koor dugg kooku naka lay def après am na lu ko ci desee te jotu ko won a fay ba weeru koor dugg ñaareelu laajam mu ni am nag kii nga xam ni moom bu weeru koor ñëwee dina woor waaye bu ci amee ngànt ba wóorut nee na du ko fay mukk noonu dong la koy bàyyi kookit luy àtteem alhamdulilah ki nga xam ne dafa yore borub koor fekkaat ko fa su fekkee ne du day ngànt moo tax mu fexe ba koor fekk fa waaye càggante moo tax fayu ko ba geneen koor ñëw kooka am na ca loola bàkkaar ndax am na loo xam ne da ko waroon def ci waxtoom te defu ko ca kon loolu dana ko war mu fay ko waaye dana war itam mu jégglu bàkkaar boobu nga xam ne moom la def ki nga xam ne nag su amee ngànt ci koor du ko fay ba faw da koy bàyyi noonu mu dem kooku na xam ne bori koor yooyu mi ngi ci aw loosam ba faw itam nag bis bu dajeeg boroomam dana xam lu mu koy laaj wallahu taala alam jazakum allahu xayran ya cheikhana kii ab auditeur u leeral FM la buy wootee ca loo nee na laay joj ñëw ca suratu baqara aw kalladi marra ala qarya bala jeex mu ne dafa bëggoon ñu firil ko ko donte loolu nag moom jàngale tafsir la nen daal loolu la bëgg firil ndax loolu day dugg ci biir fatawa bi wala déet alhamdulilah suñ mbokk ma ca ndaam loo ak mboolem suñ mbokk yooyu nekk ca ndaam ñu ngi leen di boole di nuyu waaye ñu xam ne jataayu fatawa buñ bëgguñu ko ubbi mu nekk jataayu tafsir ndax kon lu ëpp ci laaj yi day daal di jëm ci loolu te su boobaa la ko taxoonu jóg loola day daal di gàllankooru moo tax ñuy jéggalu ci boobu laaj ak bépp boo xam ne bu nuroog moom la wallahu taala alam jazakum allahu xayran ya cheikhana kii dafay laaj koo xam ni du julli du woor lan mooy atteem ci sharia al islaamiya ak ndax ku mel noonu mën nañ koo euh, may suñ doom wala sun rakk su fekkee ni ñaan na ko wala ndax su faatoo dinañ ko jullee wala ñu bokk ci ñu koy jullee wala déet alhamdulilah laaj bu mel noonu jaaroon na fi ca gannaaw ki doon laaj su amee dëkkandoo joo xam ne du julli du woor danañ ci dellusiwaat rek xam le na julli ak woor faratay sunu borom tabaraka wa taala yoo xam ne ci ponki lislaam ci la bokk am néeg boo xam ne nag dafa am juróomi ponk maanaam juróomi jën yoo xam ne ñoo ko téye mooy li ngeen di tudde ay poto su fekkee ne ñaar ya nag rocci nga ko moom jàppal na néeg booba day daanu benn ba rek sax soo ko dindee néeg bi ab taxawaayam jëkkatul te ñi nga xam ne koo xam ne danga bàyyi julli ak koor ñaari mbir rek moo fi nekk daa doon koo xam ne da koo bàyyi ngir da koo weddi ne waru ko wala mu doon koo xam ne da koo bàyyi ngir ak càgganteeg boppam nga xam ne yëg na ne dafa sàggan ñi nga xam ne ku ko bàyyi nag nga xam ne da koo weddi ne warut wala waru la kooku moom boroom xam-xam lislaam yépp nattable wuñ ne loola ak génn diine la ki ku bàyyi nag te fekk ak càgganteem la kooku it mu ngi ci dansé bu réerée rëy boo xam ne ku mat a laay biir la ku mat a yërëm la ndax kat sunu borom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ëllëg sunu borom tabaraka wa li muy jëkk a seet ci nit ki mooy julli suñ ko nattalee ay julleem daal ñu ne julli baax na ñu ne ah kon de lu ñëwati rek baax jaamu yàllaam yépp day baax suñ ko seetee ñu ne julli matul nag wala baaxul yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na dara baaxatul moo kon yow mi nga xam ne bis boobu ñëw ne ñu seet ñu ne dañ laa bëgg a seetal sa julli ñu ne ah moom kat amatul julli faf ah loolu mat naa bàyyi xel de mat naa tiit jaar na itam ragal jaar na jaamu yàlla bi delluwaat ci boroomam xalaatal xalaataat digganteem ak boroomam ne bis a ngi ñëw boo xam ne danañ ko laxas sànni ko ci bàmmeel denc ko fa kenn doxul digganteem ak boroomam su boobaa ñu ñëw di ko xisaab di teg moom ak di seet biram moo tax daanaka atte ba jërte xóot ndax nekkati na jullit ak nekkul jullit ak danañ ko julleeg duñ ko julleeg danañ ko def nag ko def ni waaye la ci wér mooy jullit boo xam ne nattoo nañ la ak càggante gu mel noonu gaawal delluwaat ci sa boroom jéem a góorgóorlu jéem a sax ci julli ba keroogee dajeeg sa borom tabaraka wa taala koor itam nekk noonu lim am ci ay ngëneel kenn xamul nu mu toll ponk la ci lislaam sunu borom tabaraka wa taala na maa koy fayal sama bopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bunt ba gën a féex ci àjjana ëllëg ñi koy wax rayyaan ña daan woor rek ñooy jaar ci bunt booba ah kon nag képp koo xam ne bëgg nga bokk ci ñooña defe naa ne weeru koor moom doo ko sàgganee yàlla na sunu borom tabaraka wa taala boole jubbanti teg na ci su fekkee ki nga xam ne moom moo julliwut wóorut teewut jullit la doon weddiwut lislaam weddiwut julli weddiwut koor waaye xëy na càggante moo ko ko teg kooko téewul ba tey mu ngi ci diine lislaam ci li gën a wér ci li boroom xam-xam yi wax donte am na ci ñoo xam ne dañ ne julli moom boo ko bàyyi rek daal ngay génn diine waaye li gën a wér mën nañ ko jàppee ab jullit bu faatoo it jullee ko du doon lu dara ñaanal ko du doon dara waaye rek na xam ne la yóbbaale fa boroomam day lu réeréy la lu diis diis la loo xam ne wax dëgg yàlla lu nit rafet mënoo rafet njort ci jooju waay wallahu aalam jazakum allahu ya cheikhana kii nee na dafa génne azaka benn nag waaye bi génnee nag bi joxewul nag bi da koo jaay bi ko jaayee jël xaalis bi seddale ko nit ñi e, fuqaraa yi mu ni ndax loolu daga na ci sharia wala déet alhamdulilah cheikh zakat ni ko sunu borom tabaraka wa taala euh, santaane mooy li nga génne ci asaka loola ngay joxe bu fekkee asakay xaalis la xaalis ngay joxe bu fekkee asakay mbay la mbay mooma ngay joxe bu dee asakay jur jur googu ngay joxe maanaam sañoo jël asakay xaalis jëndal ci miskin yi suukar wala nga jëndal leen ci ceeb jox leen ko wala nga jaayal leen seenu nag ne leen xaalis bi daa leen dox déedéet li nga xam ne mooy asaka ji rek loolu nga sañ a génne soo leen génnee leen leneen kay da nga leen a may loola waaye asaka moom génnee ko wallahu taala alam jazakumullahu xayran ya cheikhana na moom dafay sàggane ñaari rakkay fajar loolu nee dem na sax presque ba julleetu ko muy laaj eh, lan la la sharia wax ci ñaari rakkay fajar yooyu ak ban wàccuwaay la am ak ban àtte la am ci diine ji alhamdulilah loolu de ak càggante la yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li nga xam ne mooy ñaari rakkaay fajar ak witr mooy naafile yoo xam ne musu koo bàyyi moo xam daane ci tukki wala daane ci këram kon loolu rek wane na ab màggaayam wax na it moom alayhi salaatu képp koo xam ne wattu ñaari rakkaay fajar di ko julli ca waxtoom te bañ laa nee na kooka sooy bongu woon ne sa kër moom ca na ma nga lay xaar kon nag loolu màgg na màggaay goo xam ne ki koy sàggane mi ngi ci danger boo xam ne kenn xamul nu mu toll waaye ki nga xam ne da koy faat nag ba faf bàyyi ko sax faf kooku aw wu mag mi ngi koy faat boo xam ne ab jullit warta seetaan boppam loolu di ko dal war naa góorgóorluwaat farluwaat fas yéene nag di julli ñaari rakkaay fajar doole julli suba wallahu taala alam jazakum allahu xayran ya cheikhana kii mi ngi laaj mu ni naafila weeru koor ndax wér na ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ko limité woon am rek euh, nombre ràkk yoo xam ni daawu ko weesu wala nit ki mën na ko mën na julli nu mu ko neexee alhamdulilah ci xadisu aïcha radiallahu taala anha ummul muminin daf ne yonent bi alayhi salaatu bu ne fukki ràkka ak ñett moo xam ci ramadan la wala ci dulu ramadan mu teg cene nag ne bul bul laaj naka la ràkk yooye doon gudde ak naka la doon rafete njàng ma da doon gudd di yàgg lool ràkka ya rafet lool maanaam rokkoo rokkoo yu yàgg sujjóot sujjóot yu yàgg noonu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam su ko defee def fukki ràkka ak benn kon boroom xam-xam yi nartable wuñ ne ki nga xam ne mën naa wattu fukki rakkaa yooyu ak benn boole kook mu ànd ak melokaan wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jullee muy rakkaaya gudd boole ko ak yàgg kon su boobaa loola e, mooy la su fekkee ne nag wóor na ko ne mënu koo matale noona lu bari ci boroom xam-xam yi dañ ne kon la ko faatoon ci rakkaayu gudd ya ah, bu yokkee ay rakkaay su boobaa nag du yi dara kon daal Euh, julli gi su yemee ci fukki rakka ak benn la chaque ne loolu mooy la gën waaye nag diisul tere nit ki itam nag mu dolli ci ay rakka su fekkee ne bëgg na ko caa dolli ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ne salaatul salaatu leyli masna masna julli guddi daal ñaar ñaar rek ngeen koy def fa ida xashiya ahadukum tulua alfajri salla rakatan waxidatan tuutiru lahu ma qad salla nee na fekkee nit a ngi nag rek ba ragal fajar a ngay bëgg jot nee na boobaa nag na julli ab rakka boo xam ne wittar la ak julli guddeem daal yem foofa cheikh abdallah jazakum laaj ma ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su mosaan xëdd ba pare diggante bi muy pare xëdd ak fajar bi muy jot dina ci mën a jàng juróom fukki aaya mu ni ndax dana ko war a takk ci ay minutes fii ñu toll léegi ni fukki minutes wala fukki minutes ak juróom njëkk ñuy salaatu nga bàyyi lekk wala dina dagan nit di lekk di lekk ba naan salaatu xayru min an nawm alhamdulilah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci njàngaleem dafa sopp ñuy teel a dog di yéex a xëdd teel dog waaye mooy bu jant ba soo rek ñu daal di dog yéex a xëdd mooy na xëdd balaa fajara jot maanaam fu fajar jote daal foofu moom mëneesatut a lekk nag fajar nag léeg-léeg mu dëppoog nodd ji ndax ñiy nodd léeg-léeg ñuy nodd fajar juste waaye léeg-léeg am ñoo xam ne dañuy nodd salaar te fekk fajar nag des na léeg-léeg it am ñoo xam ne seen càggante àgg na ci fajar dana weesu ba noppi ñu door a nodd salaar kon daal li gën a dëgër mooy góor-góorlu ba xam kañ la fajar di jot nga fexe ba balaa waxtu woowaa jot fekk nga xëdd ci senegal bu dee ci ndakaaru ak li ko wër ci fan yi ñu tollu cinq bu jotee ba teg fukki minit ak juróom booba kenn mënatu fa lekk foofa la mën a lekk yam ndax fajar daal nay jot ah, xadis bi wax nañ ne yonente bi sallallahu alayhi wa diggante fi mu doon doge ak fi nga xam ne foofu la ñiy nodde dafay mat eh, juróom fukki aaya am na lu ci boroom xam-xam yi wax ndax noonu mu ko jàngale noonu la jàngale itam yeex a xëdd ba keroog fajar di jot ñu ne liñ ci jublu xëy na mooy su fekkee ne kay nodd dafa nodd te fekk fajar ji desee jot su defee diggante bi lañ fi mën a jàngalu toll noona am ñu ne ok oh mën na fee xaj kay waaye day fekk mu doon nag ay aay yu gàtt ndax léeg-léeg juróom fukki aaya euh, du ëpp wenn page lu bari am nay béréb yoo xam ne sax boo ko seetloo ci aay yu gàtt yi dëgg juróom fukki aay mënees na ko bind ci benn paas su fekkee lu mel noonu la ñu ne kon diggante bu jegee la boo xam ne soreewuñ ñoom ñaar ñu ne kon xadis boobu dàqonte wut ak bii wax ñu yéex a xëdd ndax su fekkee ni diggante fi ngay noppee ci xëdd ak fi nga xam ne fi la fajar di jote jàng wenn xët ci alxuraan moo fay xaj kon loolu mooy wane diggante bu jegee lool la kon dal alaa xaal moom eh, yonent bi alayhi salaatu am njàngale moo yéex a xëdd waaye teela la xëdd loo yeex yeexe xëdd na fekk fajar bu mu dugg ndax borom def ne ko kuluu washrabu xatta yatabayana lakum alxaytu al abyadu min alxayti al aswadi min alfajr fexe leen mën ngeen a lekk di naan daal ba keroog ngeen di gis fajar ji tàmbalee di leer maanaam fu mu dugg see rek su boobaa na ngeen daal di xam ne eh, lekk nag mëneesatu ko def léegi kon loolu mooy loo xam ne lu aju ci bunt boobu ya cheikhana kii dafa wax ni moom dafa paralysé yal na ko yàlla wéral ci jàmm ak salaam ci benn côté bi docteur yi dañ koo tere muy sëgg moo tax buy julli du mën a sëgg jàppi tamit da ci am jafe-jafe donte yeesa mu góor góorlu ba ñu jàppal ko mu ñu teel ko ba mën a xaw a def ba mën a jàpp tuuti muy laaj euh, naka la war a kon jullee comme tere nan ko mu sëgg yu demee noonu naka la war a jullee alhamdulilah cheikh abdallah kooku euh, ñoo ngi koy ñaanal sunu borom tabaraka wa taala mu may ko wér gi yaram te may ko bépp jullit ñu xam ne euh, njàpp mi nit ki su ko mënee defal boppam alhamdulilah loola baax na su fekkee lott na ci jàppal boppam te am na ku ko mën a jàppal maanaam nit mën naa jël ak satala wala mu jël am ndox raxasal ko cër yi nga xam ne mooy cëri njàpp yépp ba mu àgg kon itam su boobaa am na am njàpp su fekkee nag amul kenn ku ko dimbali ku ko mën a raxasal cër yu mel noonu te it mënta jàppal boppam te fekk mën naa tiim su boobaa tiim mooy daal di doon farataam amma julli gi nag julli moom borom bi tabaraka wa taala la nga man rek loolu la la sant laa yukallifu llahu nafsan illa wasaaha ki mën a julli taxaw day julli taxaw ki ko mënul mu julli eh, taxaw wéeru su ko mënul mu toog su fekkee ne dem na ba lott ci mënta sëgg ka siggi it na mu manee rek noonu lañ ko sante mu jullee donte daa dem ba tëdd mënatula jóg sax fa mu tëdd noonu lay jullee moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne julli bu demoon ba nekk ca xel ma sax nga xam ne buy rukkoo ak di sujjóot ci xel mi la koy def su boobaa loolu mooy nekk farata ci moom waaye yàlla du ko togg xam ne lu mënut la kon mbirum julli moom li fekk xel maa nga fa daal du wàcc nit ki faawu day war a julli waaye nag ca nam ko mane rek nag li ñu bañ daal mooy nga def loo xam ne mën nga lu ko ëpp maanaam nga toog te fekk mënoon ngaa taxaw loolu baaxut nga tëdd te fekk mënoon ngaa toog loola baaxul kon daal la nga mën rek ngay def la nga bu ko def wallahu taala alam jazakum allahu ya cheikhana kii dafay laaj mu ni moom ab euh, militaire la boo xam ni dafay dem ay mission mi ngi jóge euh, Côte d'Ivoire bu yàggul mais bi ñëwee ñu yóbbuwaat leen Thiès dañ leen a war a yóbbu pour quinze jours defaat yenn euh, entraînement ay formation yoo xam ni tubaab jalaaw lañ koy def ci biir koor gi nag lay doon muy laaj daal ndax dafay dagan ci moom mu dog wala day woor boole kook entretement yi wala nu muy def daal mu bëggoon am ci tontu ci charia al islamiya alhamdulilah bu fekkee ne loolu dafa ànd ak tukki entraînement yooyu mu def bu fekkee ab tukki la boo xam ne mënees na cee dog ko bu boobaa dana dagan ci moom mu dog kooram ba euh, loola weesu su ko defee mu fay kooram comme ni ko ñii tukki ñëpp di defee ah bu fekkee ne nag nekkul cib tukki liggéey bu metti rek du tax nit ki nag daal di bañ a woor li mën a nekk daal mooy mën na saa bu xëyee bu nekk woor yéene ko dugg ci biir koor gi su demee nag ba àgg foo xam ne xam na ne moom mi mënatul a jàll su boobaa yoon may na ko mu dog waaye bu mu tàmbalee dog ci kaw ne liggéey bi dana jafe waaye nag su duggee ci liggéey bi ci biir nag mu xam ne moom mi mënatul a jàll su boobaa sharia may na ko mu dog su loola jàllee nag mu door koo fay wallahu taala alam jazakum allahu ya cheikhana kii dafay laaj mu ni moom day dafa tàmm su jàppee ba pare rek am na serviette bi muy jël fomp ay loxoom ak kanamam su paree tegaat serviette bi foofu du ko du ko doo kii bu jàppaate beneen yoon jëlaat serviette bi fomp loxo yeeg kanam gi ndax loolu dafay yàq njàpp wala déet. alhamdulilah jàpp ba noppi say cër tooy nga fomp mindil muy mouchoir wala charbet loolu incha allahu dara nekku ci maanaam doonut loo xam ne lu wàññi dara la. kon kooku jotewul dara ak njàpp mi yàqul itam am njàpp wallahu taala aalam ginnaaw loolu mooy sun laaj bu mujj kon Cheikh Abdallah xam naa kon ñuy tàggu foofu mbokk yi di ñaan sun borom tabaraka wa taala defal ñu tawfiq te leen ko loo xam ne lu ci jub la ndimbalu sun borom tabaraka wa taala la lépp loo xam ne lu ci dëng la wala mu nekk ci njuumte loolu doomu aadama moo toll moom di ñaan sun borom tabaraka wa taala mu jéggal nu ko lu ci nekk ci njëriñ yàlla nañu sunu borom tabaraka wa taala boole njëri jëriñ ñu ci lépp loo xam ne daf ci nekk te jëf aju ci yàlla na sunu borom tabaraka wa taala defal tawfiq yi ñu jëfe ko te suñ ko jëfee mu nangu ko te su ko nangoo mu ful ko wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain